waaw ñu woo Pape Fara Niang. Ndiaye Ndiaye. ex détenu. waaw Pape Fara Ndiaye ex détenu. ana détenu. ana détenu. ex Jelmani. eh yuuxu leen waay. nañu seen yaay yaa ngi nii ñi ngi nii maire yi sonn nañu ñi ngi daw suba ak ngoon matin midi soir ñun ñii rek tëj nañu huit mois kaso xëy bàyyi ñu relax pur et ci lan ndax ay opinion politique Sénégal loolu daf fi war jeex kon ñii si ay caaxaan dëkkoon détenus yi nañ leen libéré ñu ñibbi. ñëpp feeñu seen kaso ñoom ñëpp. sans exception sans exception en commençant par le président Ousmane Sonko. xajuñu dara quelle est élection sa tienne à date échue te Macky xamul négocier gàcce gàcce rek la xam xeex la xam vraiment nañ libéré nit ñu ñu ñu mën a ñibbi ñu leen di jaajëfal waa chambre 46 Ousmane Barchi ak gars yi nekk chambre 46 yëpp seen famille ñu yi ngi leen di bëgg baax a baax baax waaw c'est Amadou Bamba Niang sa famille mi ngi fii Amadou Lamine Ndaw sa famille mi ngi fii Matar Sall ñëpp a ngi fii prison bi moom doomu dëkk bi doomu ginnaaw raay sa famille mi ngi fii Mati Sarr Niang Babacar Ndiaye coordonnateur départemental de la UPS de Pikine Mor Gueye sa famille mi ngi fii monsieur Kaba Souleymane Sow Joséphine Lamine Ciss Joseph Lamine Ciss Fally Sané Ibrahima Gueye ne leer bàyyil doomu jàmbur yi ñu di Mamadou Saliou Diallo MSF Sonko 2024 sa famille mi ngi fii euh, ñuy woo Babacar Djimera Sankara Mbaye mën na waajal Babacar Djimera la famille Atab Diémé famille moom dañ leen buub ñoom ñëpp yóbbu. deux minutes deux minutes voilà. deux minutes am na si génn. jaajëf. deux minutes. Hubert chambre 11 Mansour chambre 45 Ibrahima chambre 11. famille yaa ngi fii Meloune bu fan Diémé chambre 49 ak ah waa 2000 2000 waaw 2000 2000. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum famille détenue ana détenu sunu yaay yi di wéyal xeex bi di wax ne sunu yaay yi fa nekk buñ ne détenu yi jigéen yi ñoo fa ëpp di wane ne donc yaay dafa am place bu mu occupé ci société bi am place bu mu occupé ci réew mi moo tax yaay yi bi ñu dajee dañoo ne dañu am une marraine et la marraine c'est la maman de Ousmane Sonko sunu yaay bu sell woowu di nga xamante ne onkuwul waxul kenn déggu ko di incarner la nga xamante ne mooy valeur yu gën am solo ci sunu réew bi di wax ne jigéen yi gàcce ngaalaama di wax ne le collectif de familles des détenus dañu wax ne seen doom yi duñu ay sàcc duñu ay bandi boo jëlee profilu xale yooyu dañoo jàng fa ñu war a jàngee liggéey ba ñu war a liggéey taxaw ci ay taxawaay yu rafet am ay bëgg-bëgg ci réew mi ne réew mi tey ji dafa jaar ci gis ne tey ñi jàkkaar lool muy le pouvoir uni de Macky Sall c'est un pouvoir corrompu c'est un pouvoir qui marche ses enfants c'est un pouvoir qui opprime son peuple loolu c'est pas un gouvernement c'est pas un gouvernement qui doit rester à continuer à diriger ce pays ce n'est pas possible euh, je dois dire que xale yi dañu fondé woon beaucoup d'espoir si élection y parce que dañ jàppoon bu élection yi ñëwee dañuy libéré ñëpp qu'est-ce qui s'est passé malheureusement waa affaire bi en liberté provisoire. coordonnateur Abdou Karim Bey de Rufisque, chambre numéro 36. waa Magui Pastef Rufisque ñu ngi fii sa famille ñu ngi fii moom moo doomu dëkk bi doomu ginnaaw raay ñuy woo Sankara May soxna Ndeye Maguette Thiam waajal Sankara Sankara thank you my prof Mama Jangal Philo enough respect to you guys enough respect to everybody enough respect enough respect to all these family who are here retelling the international opinion that's what's going on in our country Macky Sall libéral xale yi ndax fi mu nañ gis nañ li ngay def làqu doom dóor doom sa doom yi gënuñu ñu say doom yi gënuñu ñu waaye dañuy wax sunu yaay booy yi toog bu leen tiit bu leen ragal bu leen am gàcce seen doom yi sàcc ñu jëluñu l'argent du contribuable defuñu lu ñu ñaaw tey li ma li leen di dal seen doom yi mën na maa dal tey man mën na dal keneen ak keneen si gi leen seen doom yi ay ay ay ay ay champion lañu ay héros lañu di wax nag fi mu ne nii liggéeyal nga nekk ci ay kompolo moo leen yóbbee lii liggéeyal nga nekk ci ay kompolo tey boo nekkul woon aller parler tey di nga sapp sa mbër di dem ci ay élection ku mën sa borom duma mais fi nga xam nga ak détermination bu ñu am nii ah bu ñu demee élection du baax ci yow mais nag li ñuy wax mooy jalagewuñu fowuñu ñaanuñu da ngaa ñu jox la delloo ñu nga dem li ñu neex ñu def ci kattanu suñu borom réew ko moom

asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu suñu mbokk yi di leen wax jërëjëf ci teewaay bi ndax defe naa ni tey jii ay doomi Sénégal ñoo fi teew ay doomi góor yu set bi ci ñoo fi teew ay doom yu bëgg seen réew ñoo fi teew Macky Sall day teg nit ñi seen i njaboot au ñu nekk ci njàqare mu doon ci ñoom ñi mu tëj bu ñu génnee au ñuy sëkk fu ñu romb sikki